jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk euh, si wàccuwaay maamaat lii di kontaan ak mbégte bu baax comme ni ma ko fara def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam Cheikh Thierno Dieng borom kën su kimiyaaw nee naa leen doonatu ku ñuy présenté ti ndax xam nañ ko bu baax ci biir milieu bi diggante paj ñaan euh, mu ci def résultat yu am solo ci biir réew mi bitim réew rawatina seet bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def dinañ waxtaan ci xew-xewu jamono am na lu mu gis ci làmb ji dox ci diggante Balla gay 2 ak kii di Tapha Tine su ngeen bëggee xam la lam ca gis ak révélation yi mu fa nar wax ak kay daan topp leen vidéo ba mu jeex waaye am na lu mu gis ci réew mi de rawatina ci ku ju ku jël langue politique bi ñi ko ngànk président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ay waay loolu lu mu doon topp leen vidéo ba mu jeex Cheikh Thierno damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bisimilah. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi mursalin saydina wa sallam wa la hawla wala quwata illa billahi al aliy azim ya imata seex uxdir lana bi haza almaqdir wal taxti bi bi nasrati taxtilna bi safari Sénégal biir réew ak bitim réew yëpp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fu waaye mënta nekk juróomi baat wi sell lii yàlla na la fa fekk te lay njëriñ si ñoom yàlla nekk si yow bi jaay rasulullah jërëjëf cheikh bi acca seet wala listixaar nga ciy def saa su nekk ay résultats yu am solo nit ñi di koy waxtaane fu nekk lan la lu ne ci ginnaaw seet boobu laa bëgg nga dellusiwaat seet bu leer naññ bi nga xam ne yaa ngi koy def waaw lu ñu gisoon si sonko nag waaw lu ñu gisoon si sonko waaw yoon ba passé moo walu ko si mbiri seet barkalla waxoon loo ko itam si làmb ji nga xam ne dana ñëw muy tafatin mhm. ak waaw ku mu war a muy Balla Gaye waaw mu nekk mbir yu yéeme yoo xam ne mhm. sañ seex waaw du ma waxantu si mbiru seet mhm. du ma waxantu itam si mbiru li saxaar waaw ndax lépp lu mu la laalaa rek yow boo doxee teg si teg si bët lu wër moo tax seet boo xam ne seet bu leer la nga bëgg a xam si biir xam si biti waaw xam lu la lënt sa bopp bi xam lu la lënt sa xel bu soobee yàlla boo ñu jotee loolu da si gindeeku dana leer naññ sa bopp. tarkal la waaw. moo xam lu mënta doon. Mhm. yow yaa bëgg a tukki. waaw. yaa bëgg soxna. Mhm. yow yaa bëgg liggéey. waaw yow yaa bëgg alal. Mhm. yow yaa bëgg kayit. yaw yaa bëgg yaa bëgg ba bëgg-bëgg yi jeex. waaw waaw benn bu si nekk yaa si bëgg def ñamaas ñamaas pour dugg si. waa xam nga ban buntu nga war a jaar pour dugg si. wala ndeysaan. oo mu ñu seetal. maa la ko wax. sëñ Cheikh. damay wax ne seetlu. seetlu la waxuma ne nag. waaw dénkul ko kenn loolu du wax ju man la ko yàlla dénk loolu du wax ju man mhm. waaye damay wax ne yàlla dénk na si loo xam ne. dëgg-dëgg yàlla néew na nga gis ko. fenn mu leeree comme nu mu ko yàlla dénk. lu wér moo tax képp koo xam ne ba nga seet bu leer. Mhm. wax la si démb wax la sa tey. waaw wax la sa ëllëg. Mhm. wax la itam lu ñëwagut. wax la lu ngiy dund léegi léegi léegi wax la lan mooy njëriñu ëllëg la. waaw dëgg-dëgg yàlla woo ñu ñu wax la. seetal la boo wax la bis bu nga judd bu soobee yàlla boo ragul tarkal la wax la lépp lu la lu wér lépp loo xam ne lënt na la rek boo ñëwee ñun ñu ngi seetarawaan yoo xam ne luñ la wax loo mooy am tarkalla beneen bi itam li sa xaar yu leer yoo xamante ni ñu la si wax itam bindal téere maa la ko wax yow mu may déglu mhm. am nga problème hôtel bi soob yàlla ñu leeral la sa mbir insha Allah tarkalla acca numéro bi lañ affiché noonu mu leer bu ci taayal dara woo ko rek dina jëflanteeg yow ba soxol sedd guy kooku mooy Cheikh Thierno Dieng cheikh bi dama ñëw ci néew kattan feebar mm-hmm. boobu noonu. Mm-hmm. nga am ci garab bu doy waar. Mm-hmm. boo xam ne képp ku ko jël rek. dina waat keneen boole kooku yow. ndax ndax njëriñ la. dëgg la bisimilah. alhamdulilah. kër yu doon tas bëri na. waaw defaroo si man. waaw wow. néew kattan laa la kattan. ni béyeekoon na si dagg biyee avion am ñëw ba fii fekk ma fi. walaay ndeysaan pour ko lu wér. pour nga xam ne néew kattan mooy àdduna bi. képp koo xam ne. sa kattan néew na ba mënoo jaxasoo sa kër. bu mu nee sa kër mooy sa soxna. waaw. wallaay tallaay xooma lu may wax ne lu wér la. waaw loo xam ne bu ñu si jëflante yow bu soobee yàlla xamatuma looy jooyati. Mhm. waaye duutul néew. néew kattan waaw. gis naa si koo xam ne. Mhm. amoon na feewar bu mel noonu ay nit nit yoo xam ne ligg si laa leen def. waaw te kenn ku si nekk turam. Mhm. santam numéro téléphone am. waaw rek bu seede jotoon tey ñoom ñëpp lay ndeysaan du doon won dara rek nga teg ko jeex na mm, kon wax dëgg yàlla képp koo xam ne am nga problème néew kattan mën a joxasoo sa borom kër sa sa sa soxna. Mhm. wala boo jaxasoo moom nam ko bëggee doo ko amee. wala doom tënna leen si mbir moomu nga xam ne bu ngeen jaxasoo ba pare ndox. dafay mel ni benn ndox mu tàng rek bàyyi ndu ko. Mhm. du mën a formé wu nekk doom. waaw mbir yoolu yëpp xeetu yoolu yëpp képp koo xam ne woo nga ma si rek. Mhm. bu soobee yàlla dañ la si dimbali. ko wax de nga tàggoo loolu léegi léegi léegi léegi. macha allah boo ñëwee naa dañ ko xool. waaw bu fekkee ne mbiru rab la ñu mën a xam. bu fekkee mbiru feebar kese la ñu mën a xam wallaay ndeysaan bu dee rab la dañ jaayante rab boobu ba dootu la yàqal waaw bu dee feebar la dañ ko fajal ba xam dana tàggo yow mhm. ñu ngi liggéey loo xam ne itam si sakkara munaat lañ koy liggéey mhm. boo ko takkee amal téeméeri a da ngay sëy wallaay ndeysaan comme xale buy sëy noonu ngay mel tarkala xale jamono bii nag mhm. xale laa la wax waaw waaw lu wér de mag dana nekk mag bu pare nekk xale wax jeex na nag tarkal la kon nag loolu kuñ ko takkal da nga am téeméeri at continuer di sëy macha allah wax ju wér laa la wax yow mu xamul munaat munaan mën na sëy une heure de temps rab woowu wala une heure de temps minutes mhm. wala une heure temps trente cinq minutes wala deux heures temps mhm. te du sonn macha allah jërëjëf Cheikh Thierno Dieng acca euh, ma ñëw ci sa mënin donte nag euh, xam naa lu jafe la mhm. ay ko mu defal noob ba toogal la ci si jaadeem gi xëj kurusam di ko wird sa noob bi bu yéeme bi alhamdulilah noob man bu mu si wax dama si kontaan xam nga li tax <laughs> maanaam ba mu téyee sëriñ si yëpp yàlla daf ma ko yombalal waaw ba mu téyee sëriñ si yëpp nag laa la ma ko yombalal waaw moo tax bu mu ndax li tamit siy firi waaw mooy kee am na si gàllankoor kee am na si gàllankoor ñu koy def li yëpp jublu ma waaw xam ne maa ngi si mën a dimbale lu wér moo tollool loolu moom mu si wax dama si kontaan am da fierté gu mat sëkk wallaay ndeysaan koo xam ne bëgg nga sa nopp sa la waaw wala sa tubaab la mm-hmm. wala koo bëgg mu jox la alal la waaw wala koo bëgg a tàggat am soxla si moom mu defal la soxla ba laa wax léegi-léegi nag laa wax ko wax de man noobu léegi-léegi laa la wax jóoni jóoni jóoni jóoni wallaahi ñu téye ko te doodu rëcc waaw wala talaay ñu tegu te doo rëcc waaw te képp koo xamante ni téeneel la mhm. mënoo musikuwaane ba rëcc waaw seex damay wax na si nopp waaw yàlla nu mu bindee dafa wutee wallaay ndeysaan am na koo xam ne dafa gàtt mhm. am na koo xam ne dafa njool waaw am na koo xam ne dafa xonq mhm. am na koo xam ne dafa ñuul wallaay ndeysaan waaye kenn ku si nekk si xeet yi waaw am na waxtu ñu ko war a jàpp est-ce que ci xam-xam maa ngi jàngale benn secret si yooni tali bi misaal police yi rek laay joxe misaal waaw ay montage la ñuy def fenn fu si nekk fi ñu monté doo ko wala ndeysaan lu wér waaye waxtu bu nekk rek affaire yi war mën a jàppe wala duwaañ sama joxe misaal bu ci duwaañ bi waaw waaw kon nag mhm. ku xonq waaw xam ne heure bi ñu koy jàpp waaw ku ñuul mhm. xam ne heure bi ñu koy jàpp mhm. dégg nga olof bi wala tukkulóor bi wala ku mënta doon xam ne heure bi ñu koy jàpp tubaab yi itam xam ne heure bi ñu koy jàpp waaw lii nag moo war a ñun kuñ jàpp sa nopp doo rëcc ndeysaan nopp wér daal yow mu may déglu lu wér am nga problème jaaxle nga bisimilah ñëwal boo ñëwee fi doo am gàcc du ma am gàcc sa soxla dana faju si nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a yombee incha allah macha allah ah. jërëjëf jërëjëf Cheikh euh, Thierno Dieng jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo ñu dox ba léegi wéyal des ci biir émission bi dama ñëw ci wàllum tukki mu di voyage euh, ku ko wax sa xel dina jëm ci këyit mhm. këyit nag yaa ngi ciy def euh, lu am solo ñaar ñu am solo xam naa daal ñàkk cee jëflanteeg yow wóorut dëgg la ñu ci jëflante man de ñu ngi sant yàlla waaw waaw moo xam biir réew nga nekk wala bitim réew lu wér yaa nekk fii si biir réew mi mhm. bëgg tukki waaw am nga problème këyit boo ñëwee fii da ngay tukki force waaw waaw waaw bi ñu xoolee si mbir ba xam ne sa biddiw si biddiw la nekk da ngay tukki force maanaam la nga xamante ni moom doomu aadama moo ko war a signé waaw loolu moom ñun loo jaaxaluñu wallaay ndeysaan lu ñuy xool sa biddiw du mbiri tukki mm-hmm. duñ la wax bul dem ndaxte ku bëgg a def dara nga xaaye ko itam du day bañ wallaay waaye nag mm-hmm. su boobaa dañ mandu si yow waaw ba duñ jëflante yow si wàllu ñam wallaay ndeysaan buñ ko defee itam day échec waaw waaw moo tax duñ si jëflante yow tarkal la waaye sa biddiw gis na bitim réew moo gën si yow waaw maanaam huit ans rek nga bëgg ñu bañ la ah, nag yow mu may déglu mhm. te bëgg tukki ñëwal macha allah yow mu nekk biir bitim réew waaw bëgg kayit bu légal boo xam ne fu la neex dem fu la mhm. neex ñëw fu la neex liggéeyee contrat yoo xamante ni wala signature yoo xamante ni bi nga ko xasee signé dara dootu si bàyyi tarkalla bu soobee yàlla ñëwal macha allah mbiri kayit seex dama si sant yàlla ma lay ndeysaan tarkalla koo ne ñëw nga kayit ba nga bëgg wax ma da am si nii wala nga am ko si naa taxul na ma nekk yàlla nee naa nag taxul ma nekk yàlla macha allah waaye na may yàlla laa bëgg a dëggal waaw ak ñaan yàlla itam laa bëgg a dëggal na lu am la tarkalla kon yaaw lu ma seex jërëjëf jërëjëf cheikh bi acca ñu dox ci ubbeeku sa bu sax sab bi nit ñi di waxtaane nga xam ne ca boobu mm-hmm. ah bëgg naa ñu waxtaane ko de mm-hmm. baaxee ko ñi nga xam ne jotuñ cee jëflanteeg yow waay nga am loo leen ci laay biir maa ngi nawet bi waaw càngatu nawet dafa am mu ngook tarkalla bi ñuy wax mm-hmm. ndox ngi wàcc waaw suuf ngi tooy gàncax daa war a génn lu wér nga wax. képp koo xam ne sa yaram woow na. comme suuf si wooyoo waaw. sa yaram soxla na ndox. comme nu suuf si soxla ndox jamono bi gàncax gi ñu ngi ko si biir suuf ñu ngi ko suul si biir suuf. waaw mu ne yàcc yàccaaral foofu. walaay ndeysaan te balaa yàgg da ko gis mu mel neneen. waaw yow mu bëgg mel neneen ñëwal ma mel lool neneen laa wax. tarkalla. yow mu bëgg ubbeeku ba dégg la. waaw am alal ba àdduna dégg la. kawee si mbir ma nga nekk waaw ubbeeku si am si alal ju woo xamante ne alal ju kenn mënti lim la wallaay ndeysaan loolu si boo ñëwee dañ la liggéey loo xam ne waaw doo ko rëccu de mu naqadi yow da allah waaw seex waaw neex mu naqadi da ngay ubbeeku la maa la ko wax alal da nga ko am mhm. si nii wala si na tarkat la kon nag képp koo xam ne ba nga ubbeeku bu leer mhm. ñëwaloo yi suñu duuna dañoo mën a wax di wax tarkat la wala ñu am jot di wax mhm. amuñ temps boobu waaye dañuy wax lu ñuy yàlla baaxee te lu ñu yàlla baaxee yëpp dañ ko jëmale si doomu aadama yi tarkat la man damay wax ne jinne am na lu nekk am na mhm. waaye jinne lu muy for for for man boo gisee du may ndamoo naa borom jinne wala nangam waaw ci mbir yoolu waaw jinne lu ñuy for for dafa loo xam ne xamuñ ko tarkal la a ah, lu ñu mën a mën a xam nag waaw bu doon jinne day xam rek yoon mhm. yonent yàlla Suleymaan mu nga xam ne moo seefoon jiite ili jinne yi ilif leen tarkal la ñu waaw est ce que xam nga waxtu bu may génne àdduna mhm. boobu mu ngi sant jinne yi benn sànce boo xam ne sànce bi pareeku waaye leer na no ko bu génne àdduna rek. Mhm. jinne yi xam ne génn na àdduna rek. waaw sànq bi dana arrêté. ndeysaan xam na la def. waaw nu mu def jënd yatam sukkandiku. Mhm. fekk dee na bu yàgg xet bi teeku. jinne yi kon na liggéey. bu loo jëndee da xam lépp duñ xam ne Souleymane dee waxate ko kon nag nañ si yàlla yàlla moo xam lépp. di maye lépp. waaw man mbir yàlla nag laa yor nag. tarkal na te duuma yonantu nag. loolu moo wóor waa jaama bi yàlla la. jërëjëf kon ku bëgg ku beeku du ñu wër. acca mu ngoog ma ñëw ci bayreem bu foor boo xam ne bu sax sap bi muy def bëgg a jaay jaral ku làng ak yow sax su la neexee soo ko defalee dina jaral waaye ngay yëkkati lu mel ni yëngatu ci ay conteneur mu war a ñëw mu mel ni suuf wala nga bëgg a siiw bëgg a woote ñu wuy si la hmm. fees del ah ku fi doon def concert de est-ce que jaar Cheikh Thierno hmm. ñëwal ma ci bayre bu sax sap sant yàlla bayre nu koy liggéey bu dee bayre place la waaw boo demee am na lu ñuy wax jënd baabalong hmm. jën bu sew la nii waaye day dafa mën a sakkan gis nga loolu kuñ ko liggéeyal ba defaloo ko sa place. waaw. yàlla xam ne ne yow moom. allahu akbar da nga wuti apprenti maanaam nuñ ko mën a waxee. da nga wuti apprenti ku la jàppale ku la jàppale ci liggéey bi waaw waaw. ba nga doyal. allah da tijji yeneen i place yeneen i place ba nga jaay ma jaay ma rek. bayre place moom ku bëgg ñëwal. man la ko tey yaa ngi dajale conteneur nekk fee bitim réew. Mhm. ba nga conteneur bu mu ñëwee bu mu taxaw pàcc mujj sa alal bu mu tasaaroo waxla mmh. ay leb de joxe fii joxe fi sa alal bu baa ngay ñëw jël nañ conteneur boobu ba werse la sa xaalis walaay ndeysaan lu wér na laay wax nag waaw waaw bi dafa leer ñëwal waaw allah te bu leen neex nga indi junne junne conteneur maa la wax loo si indi baa mu baa si mu jeex tarkalla li maa ko wax waaw waaw maa ko wax de lu wër nga wax dafa leer de kon nag waaw waaw yow mu may déglu ñëwal bisimila mu nekk nga bitim réew di yëngu si mbiru njaay waaw wala si mbiru business mmh. tarkal yow mu bëgg siw sa nga nekk woote booloo yaa xam da ngay jaay mhm. yaa xam da ngay booloo mhm. yaa xam waykan nga mhm. yaa xam yaa xam ba mu jeex bu soobee yàlla boo ñëwee yow moom xamatuma kuy tàkk di fay waxuma la bay tàkk fay yi de wala ko wax de tey ngay tàkk waaw génn benn morceau bu dee wéykan nga waaw nga baa mu ñaar nga ñu fàtte la wallaay ndeysaan man duuma sëriñ sol tàkk ba xëy dee wallaay ndeysaan waxtaanee si wéy waaw lii laa la wax macha allah la nga nekk nag dañ koy waxtaane bu soobee yàlla tarkalla kon na ñëwal jërëjëf jërëjëf cheikh bi acca ñu yaatal ñëw ci li nga xam ne soo ko amee lépp mën ta ñàkk mu di kaaraange mm. ndax deewu xaaraan bi dafa bëri sànnente korte bi bëri na mhm. ñëwal ma ci kaaraange bu sax surtout jamono bi ñu toll sax waaw yàqante bi bëri na sànnante korte bi bëri na waaw sëfante yi bëri na mhm. daanaka genn wàllu ñi ñooy gis ni yëpp ñuy dox ñu ngi si armeel maanaam ñu ngi dox waa ñu ngi si armeel <laughs> moo wax loolu tey nag <laughs> ba pare di dox ok <laughs> mu si bëri tarkal la ñu ngi si armeel yi mhm. ñaari anam tarkal la liggéey nañ leen ba nga xamante ne amatuñ njëriñ a bëri seen sëf yi yëpp ñu ngi ko si armel yi walaay ndeysaan cey kuñ si armel ne balaa yàgg yàlla indi tu ndimbalam borom ndimbalam ko wax si armel yi naa laa ku leyalu ku bëgg karange yow mu bëggoon a siiw ba ñuy waxtaane yow léegi sa alal ba ñuy waxtaane yow léegi sa ubbeeku waaw mu nga xamante ni yaa ba ñu ubbi la ñu jox la kaaraange goo xamante ni bu saw yàlla ku laal te yàqu mu nga xam ne yaa nekk feneen bu ubbeekoo fa waaw ñëw na jox la kaaraange goo xam ne kenn du lu la yàqal mhm. ñaari place ñooy tëj wallaay des dem moom yàgg tëj waaw waaw ñaari nii la ñuy dégg mhm. ñu dem moom yàgg duñ leen déggatu leen duñ leen déggatu waaw waaw ñaari nii la ñoo commencé am dara mhm. dem moom yàgg mu yàqu am problème ñàkk kaaraange kese la wax waaw képp koo xam ne dégg nga man ak boo ñëwee fii bu sow yàlla dañ la dafa loo xamante ne ku la laal yàqu tarkal la toogee lañ lay defal ku la laal yàqu lu wér loolu am na solo maa la ko wax waaw tarkal la ñun kaaraange xam nuñ ko liggéey sax waaw képp koo xam ne ñëw nga dañ leen laaj ñaata at nga buñ ñu ko laajee lu am solo buñ la laajee ñaata at nga am. bu soobee yàlla dañ la liggéey loo xam ne si kaaraange. waaw at moom moom ku la si laal daam. tarkalla allahu akbar. waaw kaaraange am de. kaaraange boo xam ne maanaam comme samp lay doon. tarkalla dañ lay laaj ñaata nga am. bu dee téeméeri nga at. waaw nga am. ñeent fukki at nga am. 30 nga am. waaw nga am. bu daan ñu xam ñaata at nga am tarkalla la nga at ba nga ba fu nga am na lu ñu siy liggéey si Alxuraan am nuñ koy boole. année yoolu moom ku la laal daam. tarkalla to lépp ci Alxuraan. jërëjëf jëf jërëjëf aca ñu dox yaatal jàllaat ci beneen ponk damay ñëw ci liñ naan xëccoo mm. xëccoo nag dafa bëri mm. bëri nay façon mm. xëccoo ci côté bu nekk te jëm ci toll dañoo nekk ci jamono xëccoo mm-hmm. bismillah ñu bëri ci yéen lañ ci yaakaar yéen sëriñ si ma ne nguur gi ñu ngi xëccoo waaw ma ne ñu si télé yi ñu ngi xëccoo waaw ma ne ñu si làmb ji ñu ngi xëccoo waaw ma ne ñu si bureau yi ñu ngi xëccoo waaw ma ne business man ñu ngi si xëccoo waaw ñu si marché yi ngi si xëccoo waaw te ñaareel kuy xëccoo te amoo bayra doo jot lu nga bëgg walay waxati ko kuy xëccoo itam te amoo kaaraange boo ko jotee ñu yàq la ubbeeku woo it ci yëf yi kuy xëccoo te ubbeekoo ñu yàq dëgg mm-hmm. doo si jot wala boo ko jotee ñu yàq la waaw ñaari nit ñoo toog seen bureau ba foog na ñoo si nekk waaw benn weer ñaari weer ñetti weer ñu ne sama tànk bi ñooy métti walaay ndeysaan bi mooy métti su ma toogee sama biir dootu ma am jàmm mm-hmm. sama a tëju ko laay day tàng rek waaw sama nangam sama nangam rek nguur gi bëgg naa ñu fal ma waaw ñëwal bisim la tarka yaay xëccoo suuf yow. waaw ñëwal bisimilah boo ñëwee jot ko. maa la ko wax. yow moom moom moom yaa ragal ba nga xamante ni foog ne dañ la teg si lu nga yor. waaw ñëwal ñu teg la tànk. waaw waaw kenn du la la. kenn du dootu la buddi yow bu soobee yàlla. tarkal la lu nga yor da ko yor continuer du ko jëriñoo incha allah. macha allah kon nag yow mu nga xam ne yaa ragal. waaw ñu nangu sa alal. Mhm. yow nga xam ne yaa ragal. Mhm. ba lu nga yóotu doo ko jot. waaw yow nga xam ne yow la yéenay xëccoo dara concours la wala lu mënta do mhm. wala yaay xëy bëgg client yi di ñëw si yow waaw ñëwal bisimilah tarkat la ah. mu ngi fi de lépp nga fi ah. jërëjëf Faye jërëjëf acca laata ñuy jeexal dugg ci actualité dañu ñëw ci xale boo xam ne mënut a wax mhm. loolu tam il faut nga ci dellusiwaat mhm. ndax euh, day am dëgg la waaw day am te ñaa ngi ciy ñaan lu day am bu baax waaw borom la ci jox dëgg la ciy def tawféex alhamdulilah la waaye rawatina mbiru xale waaw xale dafa yéeme maanaam buy kuy baax si xale ngay baaxee ba faw wallaay ndeysaan kuy yàqu itam si xale nga yàqu ba mu nga gis koo xamante ne judd na ba tool fu mu war a waxee du wax waaw waaw mm-hmm. wala lu muy wax dara leeru si waaw wallaay ndeysaan am na mm-hmm. wala nga mm-hmm. gis koo xamante ne dem na ba dagar dëgër waaw continuer di yàq boppam di final yaayam wallaay ndeysaan wala mel noo xamante ni dara baaxu si du melokaanu doomu aadama ndeysaan moo tax loolu dañ siy futteeku jamono bi pour pare dimbalaan see jaamu yàlla yi képp koo xam ne dégg ngañu waaw xale boo xam ne toll na fu war a waxee te waxut mhm. bisimilah ñëwal boo ñëwee dañ jëflante ba nga xam ne xale bi dana wax dàq wax kuy allah joxe woon naa si benn suur na la tama oh. loo xam ne tama la ngay liggéey allah akbar tama moom ndënd fu ñu tëggee nga ne wallaay ndeysaan te ñëpp dinañ leen wuyu si te ñëpp leen wuyu kon nag boobaa yow boo ñëwee sa xale mënta wax mhm. loolu moom dana tàggoo yow allah akbar loolu la jaaxal yow jigéen bu may déglu macha allah yow bàyyi bu may déglu itam bu mu la jaaxal mhm. yow mbokk bu may déglu bu mu la jaaxal waaw xale bi dafa wax bu dee yàlla na mun si moom wax nag laa wax tarkalla waaw wax day leer de waaw waaw waxuma la luu boo xam ne yàlla ne kii dama tànn mu luu def lam cee def ba pare mm-hmm. manuma si dara waaw lool lu wér la manuma si dara mm-hmm. waaye xale bu war a wax waaw te waxut ba ba paas fu mu war a waxee mm-hmm. nga ma xam ne kii ku mën a wax la waaw rab ko jàpp waaw wala dañ koy yàq wala yow yaa ji lañ yàq sa mbootaay ba ba nga koy boot allahu akbar waaw ah, waaye lu nekk am na seex lu nekk am na waaw ah, eh, kon naa la kule yàlla yow mu may déglu bisimilah tëkkat yow boo ñëwee dañ si dimbalante yow wala boo xamante ne dafa toll fu mu war a doxee te doxut incha allahu rabbi jërëjëf Cheikh euh, Thierno Dieng jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo lii de bokk ci saa su nekk su ne la dalee ndax euh, xam-xam dañ koy bëgg ñu ci yaatal saa su nekk ñuy topp mën a jëriñu. Mm-hmm. xew-xew jamono dañ ko fàtte mu di actualité comme ni ma mm-hmm. koy defee saa su nekk. Mm-hmm. dafa tin Balla Gaye de. cey ji bari na coow de. lamb ju bëri coow la te li desati te bëriwut. lamb ju bëri coow la. ay la vingt et un allah bëri. waaw dana bëri coow avant. dana bëri coow si biir lamb ji dana bëri coow après waaw li moom maa la ko la wër lu ko waral nag. Mhm. leneen la. waaw loo xam ne mhm. mbiru gàllaaj da see bokk. mbiru rawhaan yi da see bokk. cay mbiru xuddaam yi da see bokk. alhamdulilah Cheikh Lamb ji kañ la. waaw le 21 la. le 21. Mhm. ngir yàlla le 18. waaw le lu muy firi mooy xayu mooy tur yàlla boobu. waaw ñëwal ma wax la kuy daan. allah akbar tarkal la waaye saa am na koo xam ne moo gën a jekk am na koo xam ne war naa jóg ci ay sarax di laam-laami maanaam boo nekkee fii naan kii moo xaw a wala nangam waaw damay laam-laami la 18 ñëw man la kii mooy daane tarkal la loolu lu leer allah ko war loolu leer la de waaw waxuma naa kii de moo xaw a jeng waaye ko ci mosal tuuti ne ko demal nga gën a fagaru ci fan yi la maanaam kii dama dafa xaw a jeng waaw jekku nañ ko si seex waaw ñii kuy daana leen soxla bu jotee nga ñoomal la kuy daan jërëjëf la acca kon ñu dem ci politique ak ni muy doxe saa su nekk ci biir réew mi indi Ousmane Sonko am Ousmane Sonko coow li bëri na seen liggéey des na ñee ngi naan wax dëgg rafetlu nañ seen liggéey yow loo gis waaw ñu tàmbali de waaw tàmbali nag lañ wax wax dëgg yàlla dañ leen di ñaanal rek. waaw waaye nag yëngu-yëngu yi bari na lool. waaw waaye réew la moo xamante ni jamono bi ab yonent wàcc tudde bu loon wàcc itam. waaw ñu wàcc ci Sénégal fii. ndimbali yàlla dëgg la am pour mën a mucc. ci loo bëgg wax foofu maanaam. maanaam dama laa bëgg a waxal ne Ousmane Sonko du yonent waa jaamu bi yàlla waaw yaa ngi dégg wax. te bu soobee yàlla. waaw dana liggéey de waa dana sonn nag. ndeysaan. Ousmane Sonko moom dana liggéey wax dana sonn yàgg naa di ko wax. njiit yombul de. Mm-hmm. man bëgg ma di faral nit ba doo ko wax dëgg. waaw loolu rek mu lu ñuy bëgg bëgg Ousmane sonkoon nañ ñu wax la nga xam ne. Mm-hmm. yàlla dana koy xamal jaam yi. waaw donte na da nga koy wax askan bi meral la waaye fekk Sonko moom dégg na loolu xam fu muy teg tànkam. Mm-hmm. dafa gën. loolu rek mu am solo. waaye bëgg askan bi kontaan si yow bu la yàlla xamalee dara nga dëgg si tànk. waaw baaxul wax ñii neex si Sonko ma nekk musulul tarkal la kon nag na góorgóorlu fagaru mhm. na gën a mucc waaw yal na ko yàlla dimbale mhm. moo président bi yëpp waaw ak lu ñu mënta nekk rek lañ sumb rek mhm. yal na leen yàlla may ndam amiin waay maanaam ñu yàlla di xamal waaw buñ de sooraale ñi ba duñ wax waaw lay ndeysaan wax leneen yàlla xamal na lañ leen di ŋàññ man ci loolu laa nekk tarkal la réew mi yor ko jamono bii guddi ñu toll yombut déedéet galgal yi bëri bi bëri na waaw te lépp nag daanaka dafa sarsi wu si ku ñu mu muy Ousmane Sonko ndeysaan waaye dañ ko ñaanal yàlla nag yàgg ne di ko ñaanal yàlla waaw te itam li ñu yaakaar te bëgg ko dañ leen jox dog ñu téyal ko dog incha allah. tarkal la. Sonko la Ousmane Sonko. waaw dañ ko taxaw comme bëgg taxawee réew mi. loo leen di digal saa su nekk ñu koy faral di saraxe. ma leen di digal moom bu ñu waaw waaw ko mënee. waaw bu ñu jóg mukk dugg tuur. mala ban gëleem nag. wala xar waaye loolu moom secret la. waaw <laughs> boobu <laughs> code la. tarkal la waaw na ko gaa dox kon ngoog dox leen ko ca suuf. bu leen bu ñu bëggee yàlla dimbale leen. dañ jokkoo ñu ñu wax leen seen sarax. barkallah dañ yor réew mi ba nuñ fi jógee. waaw benn gàllankoor daam. jërëjëf waay. soxna ci lan ngay ñaan nga ñaan tàggatoo ci lan tey. tàggatoo sariya yaa muqti maaminu baari. Mhm. latifa yaa rahmaanu baas turaasixi. raufun ayaa sukkur waayu malik la tasirix na jaay antar bi waxaale. Mhm. yaramu bayna daar min kati fatan tu sax si waanu sara. ala moomin. ala ajlu toxta maraam ilaana fa anta mujibun kaafi kullu waasiq. amin bi xaqi wa bi sirri allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatil mawlaq walqaatil ma sabaqa naasir xaq bil xaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب السماوات والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين